الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يسمع قولي barke borom Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér amiin ak mbooleem jullit yi ak mbooleem ñi ko yéene kan naal yii mu naanal Serigne Touba yàlla na ko àggale ci sagoom ba naal yeneen naal te nu ànd ko ak moom ci barkeeb maamam ju tedd ja Cheikh Ahmadou Bamba mi sos yoonu murit bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki làmbaay bokk yi nga xam ne ñoo bokk tund bawol noo ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu limaamu dëkk bi ak ci turu kilifay dëkk bi di leen siyaare bu baax a baax a baax di rafet luy jataay bii nga xam ne teew ngeen ko fii ci jàpp di jataayub lislaam di jataayub alxuraan di jataayub xasiida kenn nit ci sunuy doom nekk ci bopp liggéey bi muy sëriñ Ndongo noo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ci tur dëkk bi yépp yéen ñi fi teewit kenn ku ne bi ngay jóg yitte ji nga amal ci liggéeyal Serigne Touba yàlla na la ko Serigne bi fulal te nangul leen ko bu baax a baax weer wi nu génn muy weeru koor li ci di ay gëneel yàlla na ko yàlla tuur ci mbooloo muy fi teew tuur ko ci waa làmbaay bi yépp yiw bi nga xamante ne moom lañuy sàkku ci weeru koor yàlla ko suñu borom defal ñun ñépp te defal ko mbooleem jullit yépp bokki làmbaay yépp noo ngi leen di sant ci tur waa dëkk bi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di leen xamal it ne dëkk bii di ceeb lii ngeen fi taxawe muy lislaam taxawe ko fi liggéeyal sëñ Tuubaa ñoom ci loolu rek lañ nekk ci loolu lañ xam ci loolu it lañ tënku kon su ngeen fi ñëwee amee nañ leenu cant amee nañ leenu ngërëm cant gi nag am na fu mu tàmbale waaye amut fu mu yem noo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax noo leen di booleeg sëñ Touba mi nga xam ne mooy boroom fay bu mag bi yàlla leen fay fay gi bu ñuy fay yàlla ci jullit yépp bokk yéene jii nu am ci liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko sëriñ bi mottu leen barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbooloo mi yàlla nañu yàgg yàlla mbooloo mi wér yàlla bu seytaane dugg ci seen biir yàlla bu leen seytaane jaxas yàlla bu seytaane am ci yéen aw yoon yàlla ngeen àgg fa mag ña àggoon ci liggéeyub sëñ Touba bi ne ko sëriñ Saliou waxe woon mag ñi moom lañ doon lég lég yéene jën amal ci sëñ Touba di ko liggéeyal mag ñi nekkatuñ fi waaye pas-pas baa ngi fi ku ko def na ko mag ñi daan defee rek am ko ni ko mag ñi amee woon sëñ Touba nag li ci sëñ Abdoulaye waxat rek a ci nekk sëñ Touba ku ñuy gëm la ku ñuy wóolu la ku ñuy yaakaar la ku ñuy liggéeyal la noo ngi leen di kalaameeg sëñ Touba wa axiru daxwaat général Serigne Donga Ndiaye ci taxawaay bi pas-pas bi bëgg gi ak itte ji daayira bi yépp amel nañ ko amel nañ njukkal donte moo jiitu waaye li ko ci war moo ci war ñépp waaye ñaare dinañ dem ba ci jenn jamono daanaka bu ñépp jàppoon nan war a jàppee wax dëgg du sonn li mu war a sonne kon nan xam ne mbooloo moo gis faw mu am ko jiitu waaye jiitu gi tamit buñ buñ jàpp ne moom moo war a doxoon lépp ñun war nañoo jiitee waaye war nañ koo taawul lépp ba mu oyof ci kaw ndax loolu day am solo loolu ci njiit kon jëwriñ ñu ngi lay jaajëfal bi ci dollee ko ñuy santaat waa mañ ma ondoo reeñu di la wax ne ne liggéey bi kenn waru leen cee jiitu kenn waru leen cee jiitu kenn waru leen cee man kenn waru leen cee gën a am ak bëgg donte ñëpp murit lan donte ñëpp lu baax lan bëgg waaye jëwriñ général gi yàlla fii la ko dogal ak Serigne Touba mu yeewoo fii ci pencum ca kon kooku di seen doom di seen xarit di seen dëkkandoo war ngeen koo jàppale ba liggéey bi tey bu wàll làmbaay gépp seetaanoon ko faay du ci am yéen a war a jiitu ci kanam ndax tey jii safaan ba bu amoon ci moom kenn fa jiitu loolee nag ngeen mën a muñ lépp ngir daw wut si ko Serigne Touba tànn ko jiital ko ci tund làmbaay kenn warul leen kéemal kon war ngeen cee góorgóorlu bu baax pas-pas nak kenn du ko wutal kenn kenn ku nekk yaa koy wutal sa bopp bàyyi mën naa fàggu njaboot mën naa dundal njaboot waaye barke mënu koo joxul njaboot doom it mën naa liggéeyal waajuram ca barke kon kii seen doom la Serigne Touba ko tànn jiitoo ko ci tund Lambaye Lambaye cinquante deux wala cinquante bu ci beneen dooleeku démb yàlla dogal mbooloo nosu ba nosu moom mii bañuy nos jotaay ba ay xel xelaat jëmmam ne nañ ci jiital jëwriñ Ndonga Njaay te bañ koy fal jëwriñ nekku fa loolu te am na ñu fa nekkoon ëpp ko xam-xam magoon ko gën koo xam àdduna te Sëriñ Tuubaa tànnu waaye xoolal mbiram sunu boroom ni koy tànne ni ko Serigne Touba tànne tamit del ci xel yi ba mel na xel ne jëwriñ euh, Ndongo Njaay doy na ma ci xel yëpp àndandoo ci loolu kon loolu mbooloo mépp bu nu àndoon na nit bañit loolu mënuñu ci dara ndax lu sunu borom tudd la lu sëriñ bi jiital ci liggéeyam la kon jëwriñ tegu fi boppam sunu borom ko tànn jiital ko fi waaye yéen waa dëkk bi donte nag yéen a ngi jàpp waaye daa war a fes aw lay amatut daayira bu moom daayira Safinatoul Amaan lay amatut ci liiri ngi Bawal ma nga Dakar ngi xool Touba ak yeneen reson yi ak yeneen dëkk yi nga xam ne doomi làmbaay yaa ngi fi kenn ku nekk fa nga ca boo jëndee carte membre ak ñeneen ñu fa jënd dinañ fa wut koo xam ne ni moo ko fay teewal kon liggéey bi aw lay amatu ci nañ leen ci jàpp bu baax bi ci doole daam jëmm ju fi bàyyi koo daayira di jënd jëmm rek ci dëkk bi jenn jëmm rek a fi bàyyi di ñëw daayira muy soxna Mati Ñaŋ jenn jëmm rek a fi bàyyi ko di ñëw daayira muy soxna Mati Ñaŋ di ku jàmbaare lool